il faut que ñu bàyyi benn confusion. lan ce n'est pas entre Ousmane Sonko et le Benno Bokk Yaakaar. ce n'est pas entre Ousmane Sonko et docteur Mbow ce n'est pas entre Ousmane Sonko et la euh, l'APR ou bien le président c'est entre Ousmane Sonko et l'État du Sénégal. <laughs> c'est ça incarné par le ministère de. de, de l'intérieur. Qui est un politique. du reste. <laughs> L'État est incarné par un politicien mu ne bokkul quoi moom. alors euh, maintenant affaire la bokk. daaneelal foofu daaneelal foofu euh, euh, gis nga gis nga bu fekkee ni dem na ba cëppaandaw ji Ousmane Sonko war a am fiche. dañ koy jox fiche mais est-ce que waroon nañu yegg yi day bokk élection yi. est-ce que warul bokk warul am si bokk. Ah, alors est-ce que est waroon nañ yegg foofu noonu euh, ba recours yi yëpp di ci am est-ce que si on avait appliqué la loi dina doon tax ñu ñu yegg fii tey mais no duñ fa àgg loolu moo tax kii lu muy wax nii ak ñun nekk di wax nii sax da ngay c'est une honte quoi pour dëkk bu mag comme Sénégal Sénégal est réputé être aussi benn dëkk bu mag ay penseur ay une grande histoire buñ tolloo fii nii c'est une honte nekkatuñ sax ci ci lu xel mën a nangu parce que bu fekkee ne fii lañu toll loo xam ne lépp la Sénégal yépp xam nañ que ni lii jaarul yoon mbir yi dañoo dañoo dañoo nekk di acharné wu ci benn benn benn politicien depuis boo xoolee ku mel ne ku mel ne euh, Sow lu muy wax ni on est tenté de euh, penser que ni day défendre Ousmane wala day wax kii day yuuxu nii di tëb si kaw mais le problème mooy genre yi ñoom ñoo tax affaire yi am confusion ñoom ñoo tardé réew mi. parce que moom de cette même façon suba bërki demb ci beneen plateau nii la taxawee di di di réeral nit ñi ci contumace te pourtant buñ àggoon leeral mbir mi fañ ko waroon leerale bu leeree woon fa mu war a leeree parce que moom il a de très mauvaise foi. non mais non je dis mais non, dama koy suivre damay wax ne xam nga dama laaj ndax war nañu dama ni. mais bu il était de mauvaise foi parce que dafa am loo xam ni daf ko omettre bañ ko wax bàyyi ma argumenté bàyyi ma argumenté parce que dire de mauvaise foi c'est pas une insulte. daf ko daf ko omettre bañ ko wax bi muy wax ci contumace. ñëw pendant plus de une heure de temps nanguwul wax que ne bu fekkee yoon dalaa jàpp yow comme ni ko juriste yëpp waxee moom ci kanam te loolu de réeral nit ñi day gën a créer confusion lépp la wax ba mu des bu fekkee yoon dalaa jàpp. il a pas dit ça il a il moom moo ko def exprès parce que xam na ni loolu. c'est terrible ça dafay dafay dafay dafay laal Ousmane Sonko. il a argumenté durant une heure de temps. il a argumenté durant une heure de temps. mu ah, ne ah. soo demee nga rendre soo demee nga rendre ah, mais il a bu fekkee que ni dañu laa jàpp parce que loolu la texte yi wax bu fekkee que ni dangaa dem yóbbu sa bopp nga jébbal sa bopp wala boog tu venais à être arrêté moom mu wax pendant une heure de temps mais il a pas il a pas voulu dire si tu venais à être arrêté. oui mais non mais léegi loolu. Euh, xam nga xam nga confusion yu mel noonu. Eh, xam nga xam nga confusion yu mel noonu. ba ñuy wax dëgg gu mel noonu moom moo ñu yóbbu euh, fii ñu toll nii. tey bu ñu demee ba wax ni. je l'histoire boobu noonu confusion boobu ñu créé nga xamante si benn parti moo ko créé benn groupe moo ko créé benn sénégalais àndu ak ak ñoom nga xamante si adduna bi yëpp neneen contumace nii lay doxee ñu la jàppee buñ la léegi loolu moo waroon a tëb jamono bi mu waree tëb bi ñu ko jàppee mu war a tëb bi ñu ko waroon tëbal léegi tëbaluñ ko ñu ñëw ko fii bu ñu demee ba benn juge décidé euh, je pense que quand Euh, ku nekk tu es libre aujourd'hui de donner sa position par rapport à un sujet donné il a toujours soutenu ici non non non kii non man xam naa daje nañ ay plateau suivre naa ko xam naa que ni c'est quelqu'un de malhonnête am na xam-xam na am na xam-xam parce que mën na argumenter parfois buy yuuxu sur excité wu def nii yooyu noonu jaru ko nit ñi xam nañ le rôle que tu joues xam nañ le jeu que tu joues loolu c'est Sénégal yi laa lay waxal nag de ne pense pas que mën nga leurrer Sénégal man maa lay déglu da ngay acharné wu ci Ousmane Sonko non non non non mais mais si tu n'as pas je me wax ko da ngay acharné wu ci Ousmane Sonko da ngay induire nit ñi en erreur et tu le fais exprès mais non on parle quand même man li may wax ni ça rapport avec ça rapport avec ça damay soxla tey yow nga analyser par rapport ak des faits qui sont là mais pas dire que qui est malhonnête qui est malhonnête da nga maa laaj da nga maa laaj ne moom lu tax affaire yi wër woon accès fii man ni la c'est des gens yuy induire le te le problème mooy dañ koy def en connaissance de cause c'est ça qui est dramatique parce que ñoom ñoo nekk au la scène ñoom ñoo nekk ci caméra yi te am nañu xam-xam le problème mooy bu fekkoon que ni nit ñi am nañ seen fit Sénégal yi am seen fit comme ni ko yenn professeur de droit yi waxee ñu ñu ñu nar ñu indil benn confusion parce que arrangé wul wala benn ministre de la justice moo ko bëgg a nit ñi warul am de yenn journaliste wala yenn yenn intellectuel yu dem a la télé di ko relayer di relayer affaire boobu tout en sachant que ni c'est illégal ah, donc ah, foofu loo taxamal ah. la loolu ñu def noonu yooyu ñu def noonu moo ñu indi tey fii ñu nekk bu Sénégal yépp jugoon taxaw ñu ne bi ñu jàppee nit ki euh, mu nekkoon contumace ñu arrêté ko loolu anéantir nañu ñu ne eh xam nga lan la nañu dem ñu def procès ñu àtte waat problème bi. buñ ko defoon fii yëpp c'est parce qu'ils ont voulu forcer ils ont voulu parce que ñoom dañoo bëgg affaire yi dem fu mu leen arrangé ils ont pas voulu respecter texte yi texte yi bu ñu ko respecté woon fii duñ fi nekk génne nit ci ci ci ci yi du ci am li tax ñu génne Ousmane Sonko illégalement ci liste yi xam pas voulu dem yóbbu euh, yóbbul ko yóbbul ko affaire yi fi ñu ko waroon yóbbul gis naa la un jour ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay jiñ waaye Ousmane Sonko rek dañuy wax wax la li ma la bëgg a wax wax ji jeex ñu jàll ci leneen donc donc mais man xoolal waaw bàyyi ma wax. waaw léegi ma wax la ma ñaari baat nga dégg. léegi nene parce que tamit euh, pour dire. Ah. c'est même pas la peine lii mooy Pastef lii mooy Pastef. pour dire eh boo ko Pastef de. gis nga li ma lay wax nii tu as une haine gis nga sa masque day daal. je suis déçu kii dama ko xam. yow yow li nga wax li nga wax rafetlu la lii mooy Pastef. c'est-à-dire que kii da ko yàgg ak Sénégal gis nga lii c'est genre de c'est genre de mauvaise foi c'est mercenaire yéen yéen a réer ak Sénégalais yi parce que bu ngeen doon wax dëgg. Euh, confusion bi am. confusion bi am su ngeen doon wax dëgg du am. gis nga léegi c'est ça Pastef Pastef ñoo la gën gën a nekk góor ñoo la ëpp xam-xam ñoo la ëpp njariñ ci réew ñoom la xale yi gën a déglu mënoo leen mépriser mënoo leen wàññi man nag bokkuma benn parti mais juste pour wane sa haine bi nga am ci plateau yi di faire semblant de dire la vérité yuuxu ci kaw mais ci suuf le sale jeu que tu joues Sénégal yëpp ñu ngi koy gis s'il vous plaît c'est juste pour dire que ni ces gens yi ñoom ñoo ñu yóbbu ci confusion bi ñu nekk Ousmane Sonko dañu acharné wu ci moom gis nga Ousmane Sonko bi ñu ko jàppee nee na pour dire vrai gis nga bi ñu ko jàppee c'est lan la ko jàppee corruption de la jeunesse loolu c'est ridicule tous les Sénégalais en ont en ont pleuré léegi bi ñu ko jàppee ci loolu ba ñu ne mais jugé nañ ko ci gis nga bi ñu ko jàppee gis nga bi ñu ko jàppee ne da nga xamante ni suñu texte yi xam nga moo gënoon suñu appliqué woon texte yi tey duñu accès fii ba koy génnee illégalement téye en prison ba noppi naan xamuñu fu mu nekk yóbbu nañ ko ko faa ils ont essayé de gagner du temps ils ont essayé de def le tout pour mën a génne Ousmane sa leen fa man fa mën problème nekk ne ne gis nga lépp luñ fi mën ta wax te waxuñu dëgg dañuy tardal suñu bopp dañuy réeral Sénégal yi. nga la vérité mooy. réew mi acharnement bi am ci président Ousmane Sonko c'est trop et c'est très grave te loolu moo ñu yóbbu fii ñu nekk ni benn nit. am ay droit am ñu koy xañ ay droit am su ko justice joxee ko favorable ñu fexe la appel fexe nu ko indilaate appel fexe nu ko yàqale procès boobu ak nu ko nu dem na ba justice jox ko jox ko dëgg bi ci mu mën a participer. mu dem ci benn mu dem ci benn boo xam dañ ko doon jiiñ viol di ko jiiñ di ko jiiñ euh, nan la tudd euh, menace de ñu ne yii yëpp amu ci ñu ne ah foog ñu takk dara ci tànk loo xam ne moo koy tee bokk gis nga yooyu ñu doon def noonu conséquences moo nekk ni tey parce que le plan moo doon fexe ba génnee ci liste yi nga forcing boobu ñu def tey moo ñu indi ci impasse bi ñu nekk parce que tey dañoo xam que ni dos au mur avec des décisions de justice amatuñu choix. léegi nag li leen li li si des rek mooy. jeexase carte gi forcé. def mbir yoo xamante si ni teguñu ko fenn et loolu moo tax ñu génnee président Ousmane Sonko ci liste yi dañ koo war a daaf dégg na la décision du, du, du juge et c'est pas substantif nañu dugalaat loolu mooy le xoolal le vouloir des Sénégalais Sénégalais yëpp euh, Sénégalais yëpp lii la ñu bëgg lii benn parti petite parti boo xamante si nii benn euh, petite parti boo xam ne bëgguñu Ousmane Sonko bokk ñoom ñoo nekk di def lépp lu nga xamante si ni ñu ngi koy très bien alors euh, s'il vous plaît Euh, un instant un instant il faudrait que ñu ñu comprendre ante aussi s'il vous plaît euh, Mbow laissez-moi terminer je vous prie il faudrait que ñu comprendre une chose les téléspectateurs qui sont là chez eux en train de nous voilà, regarder déjà coow bi su bëriwee il ils sont pas obligés de nous regarder dañuy zapper alors ce que vous êtes en train de dire malheureusement euh, euh, kenn kenn kenn du ko déglu non tout le plateau ni koy dégg de ni koy dégg bu baax nee na dégg boobu dégg boobu ni mu la koy ni koy dégg bu baax a baax léegi nee na qu'est-ce qu'on fait d'autre part s'il vous plaît euh, personnaliser le débat vraiment indi wuñ fi on n'est pas là pour dire que tel ou tel on est là pour parler de faits. Mhm. parler de yoo xamante ne moom moo tax ñu toog fii et c'est des faits rien que des faits pas de débat de personne su ñu jëlee débat bi ba ko teg sur des débats de personne on rabaisse le niveau et c'est pas bien. c'est un débat de personne ne da nga ma laaj lan moo tax. affaire pas à toi. voilà ku que mhm. pour respect justement ñi ñuy seetaan il faudrait que ñu évoluer un peu. Mhm. Aliou maa ngi ñëw dinaa la parole mais je veux que tu te calme. bëgg a wax xam nga aussi ci Sénégal Sénégal léegi man man non. mais Alioune nag mais Alioune mais Alioune nag. non je vais je vais je vais ah, leur dire. waaw ah, mais ma wax leen nag man tey ma wax leen nag man. sa masque bi nga takk boobu nit ñi xam nañ ah, ko. on te connaît très bien. non je vais parler je te donne je vais parler te nañ ma bàyyi ma wax ba mu yegg la. je je vais donner la parole. nañ ma bàyyi ma wax ba mu yegg. bàyyi ñu jox capitaine ak monsieur Mbaye. waaw ñu wax et puis on calme un peu. waaw mais je vais je vais je vais je vais revenir. alors. Euh, il faut dëkk bi tey ñu war nañu xam ndax dëkk bi ñoo ko bokk wala bokkuñu ko. Euh, Babacar qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour euh, une élection vraiment apaisée parce que ni ñu gisee muy demee nii quand mhm. euh, mën na nekk un précédent dangereux. tout à fait pour cette élection présidentielle à fait dégg naa dégg naa le président Boubacar Camara di wax ay waxu report. oui sous prétexte que dëkk bi amul stabilité gis nga yooyu ay caaxaan la. il faut que tamit euh, ñu respecter Sénégalais yi bu fekkante ni ñoom dañoo parewul pour dem sud à des élections ñu xam ne ñoom parewuñu ñu toog na xaar ñu mais. mënuloo taxaw ñu dëkk la micro nga taxaw daan ne euh, opposition bi parewu ñu dëkk bi stabilité amu fi gis nga tey ne euh, ne pour que ñu dem ci élection yooyu il nous faut un président boo xamante ni dafay dal yamale ñëpp ginnaaw si yàlla def na ni moom bokkul donte ni am na candidat dafa war a mën a yamale candidat ak yeneen candidat yëpp donte ni far am na mais tey bu fekkante ni da nga ñëw. joxe ay clé yoo xamante ni yow si clé yooyu yaa ngi siy def say njuñ njaag permettre opposition mooy li leen daloon moo dal ñëpp. gis naa ni que ñu ngi commencé léegi. Euh, beaucoup de personnes beaucoup fu mu nekk nii ku si nekk ñu ngi commencé ñoom di di di parce que lu tax ñun ñu amoon avance boobu. c'est mooy nii non c'est c'est très grave. lu tax ñun gëm sa bopp ñu amoon euh, avancement boobu moo doon ñun dañu teel a nekk ci saisie bi parce que ñun ce qu'on a permis euh, tey jii nii à non militants c'est simplement de faire la collecte collecte boobu noonu bu ñu ko defee nag triage beeg saisie bi c'est euh, au niveau euh, lañ koy lañ koy koy defee maintenant bu fekkante ni comme Alioune lu mu wax nga daan ne euh, président de la République pouvoir yi mu am moo bëri mm. te pouvoir yooyu noonu moo waral tey jii nii Euh, ngay mën a nommer directeur euh, président wu Sénat dindi ko heure bu mu la neexee nommer sa ministre de l'intérieur di ko sant muy def ak muy muy nas di nocc loolu noonu nag pour bañ ko moo tax le président Bougane si programme bi nga xamante ni dina ko présenter incha allah bu yàggul dara mu ne président de la république euh, pouvoir yi nga xamante ni dañ ko jox non seulement dafa bëri mooy li Aliou wax mais lu ñu war a encadrer la mais aussi député yu mu wax tamit dafa dafa baax aussi tamit ñu ñëw si mode de scrutin wu député yi. ñu xam député yi naka lañ leen ñu. fale comment choisir les députés comment ñu a nekk ay député wu président. wala député wu tel tey tey ngay nekk si benn gox. ngay yeewandoog nit nga dégg yeewu ñu daan ne la nekk na député. waaw comme kuréel comme kuréel ah. non comme beaucoup de personnes. Macky moo ko fa ah. comme beaucoup de personnes. parmi les femmes de valeur yi fi nekk yëpp moom kooku la choisir. Euh, si. Euh, li nga xamante ni moom la ñu tuddee suñu pacte de confiance muy le programme euh, de gëm sa bopp dafa ne la liste majoritaire lu ñuy éliminer la maintenant euh, député yëpp ñu ngi leen ñu falee ci seeni ay gox député tey jii nii booy fal di nga xam ni kat mortaala mii nii moo dëkk bërëb sàngam kooku noonu moom la ñuy tabb pour mu nekk suñu député tey